asalaamaaleykum madame Soxna Naata Mbaye bu tay gis nañ la fi yaa ngi teew ci festival chant des Linguères initié par Indiva une voix en or Coumba Gawlo Seck euh, meun nañu xam naka nga gisee initiative boobu Coumba Gawlo jël pour euh, taxawal lepp luy jigéen manam scolarisation des filles autonomisation des filles et leadership féminin bi. waaw c'est Soxna Naata Samb donc administrateur du fonds d'appui à l'investissement des. gën a néewalee doole jigéen ñi donc Coumba Gawlo ñu koy sant di ko gërëm si initiative bi di yaakaar ne bu ñëpp waxee dinañu am voix dinañu déglu te loolu moo waral ñu doy ni am solo merci beaucoup ñu ngi lay remercier et